fii ci diwaanu almadi ngir tàntal fi rasulillah ba tax na itam moo xam autorité nga moo xam itam woykat nga taggkatu yonent bi nga wala sax sëtu rasulillah ñëw nañ teewee bés bi rafetlu ko yonente bi la rek sallallahu alayhi wa sallam foo munti ges mu représenté islam ci yonente bi la branché te l'islam mooy dëgg ndax tey soo ne yow taalibe nga ak foo munti bokk te doo julli doo woor doo jëf dara li nga xamante ni loolu la yàlla santaane yow sab yow sab jullit ak sab tariixa ak wala yow li ngay woote nul na. tax na itam message bi ñuy laas rek moo di nit ñi delluwaat ci seen borom ngir gën ko mën a jaamu jox ko la nga xamante ni moom la yeyoo. góor yàlla yi fi nekkoon yëpp wootuñu woon lu dul jaamu yàlla wootuñu woon lu dul tegu ci yoonu siraatal mustaqim wootuñu woon lu dul topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla jaamu yàlla weesuwul ngay dimbali néew di doole jaamu yàlla weesuwul nga xam ne kii sa euh, sa mbokk la wala sa wala sa euh, sa frère la ci ci lislaam nga jàppale ko te yàlla tax mbooloo doon benn doon na loo xamante nit lu gën a am solo la ci dunduk doomu aadama rawatina itam ci jullit ñi tax na ñoom ñi teewee woon bés bi di woote ab jiboo da ne seytaane jéemul ludul yóbbaale ca safara ndax loolu moo tax yàlla wàccee ko te wax na ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kon nañu gën góor góorgóorlu si suñu diine góorgóorlu ci ci euh, suñu waxtu julli yi góorgóorlu ci jëf lu baax. ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xal ñaar nañu fexe doon benn parce que yàlla def nañu benn ba noppi ñun ñoo wàcc ci suñuy jikko ak ci suñuy xel ak ci suñuy melokaan di féewaloo waaye ca gaaw ñun ñëpp benn lañ fa. ñu ne yonent bi ni ñu ko tàntalee rek doon na loo xamante nit lu baax la ba tax na itam. ku ci nekk génnee nga sa koppar def ci ngir bésug juddu yonent bi gën a mën a yaay